ngir xew-xew bi nga xam ne moo xew ci jamono muy feebar bi ñu doon wax su ci lan ma ci taxawaay ak mbirum jàkk yi daje yi ci jàkk yi ak ci jumaa yi léegi nag am na luñ luñ tënk mbooloo mi luñ daje tënk nañ loolu liñ tënk nag dañ leen bàyyi ak suñu mbokk say dramé wax leen point yi liñ tënk liñ mbooloo mi liñ liñ d'accord gannaaw buñ dajee ci alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci mars. alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp ñun mbootaayu imam bu Kaolack ñu daje woon fii comme ni ko Seydou Nour di ngir feer bi nga xam ne moo lambee réew mi ñëpp tiit ah, ñu ne en tant que imam daje woon tey di di ko luñutu waaye li gis daal mooy ànd nañoo état cent pour cent xeex feebar bi ci wàllu ñuy xamal nit ñuy seete ci loolu nag ñun dëppoo nañ ci ñetti point yi jumaa yi ak jàkk yi nañ leen bàyyi buñ leen tëj ndax jullit ak sila adduwaaw silaaxul moom mi leen bi wax jullit nag fu muy gën a mën a ñaane defe naa ne mooy jàkke ja kon ñun tëjuñ suñu jàkk incha allah dañuy bàyyi xel na di dem jàkke yi di julli farata yi juróom di julli juuma incha allahu baqel nag buñ dajee ak ñu ñuy dajeel di leen orienté di leen dégal ci set comme ni ko état bëggee état ak diine ji benn la ay may ak nguur mënuñoo xaajoo kon ànd nañu ñoom cent pour cent waaye incha allah ñun dañuy continuer di julli ji suñuy jumaa di ñaan te ñaanu yàlla mukk feebar bi jàll ba àgg fu ñuy fermé jumaa ñu ngi ñaan yàlla na feebar bi na jeex ñaanu yàlla mukk tey ñaanuñ ko ëllëg feebar bi àgg ba ne ba ñu ne nañ fermé jumaa yi ñaanuñ ko yàlla suñu mbokk imaam Basiru Diop euh, bëggoon na ñëw waaye ngànte gu téye kon daal lii moo doon li nga xam ne ñun imaam yi nga xam ñoo dëkkee Kaolack ci région Kaolack yëpp bureau bi ñoo dajee fii rek nag di di di orienté nit ñi di leen yëgal ne lii moo xew jumaa yi daal dañuy continuer di julli di xutba di sensibiliser nit ñi xamal leen set ak laab te loolu islam xam ne woon na ko bu yàgg jullit moom xam ne islam jàppal juróomi yoon ci bis bi sangul loolu set mënu ko passé yal na yàlla dimbale ñu feebar bi yal na ko yàlla jeexal yal na bu mu lor kenn ci réew mi fu mu àggu yal na bu mu fàgg yal na ko yàlla jeexal takk asalaamaaleykum wa rahmatullah rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxira xasanatan wa qina azaban naar allahuma irfa anna wa an jami sénégal asal marad allahuma sallimna wa sallim jami eh, al sénégal bi asal marad amin ya rabbi